asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di amaat loolu mbégte ci vidéo yi leen di defal ngeen ci àndew ñun mbokk yi tey dañoo bëgg waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moom lañ dëgmal mu di élection yi nga xamante ne bu neexee suñu borom dimanche Sénégal ci la ñuy tànn ki nga xamante ne moo koy jiite ci juróomi at yi ñu jëm waaye mbokk yi ki nga xamante ne moom lañ tànn pour mu jiite réew mi ñu di ko ñaanal di ñaan yalla aussi ki gën ci réew mi ci juroomi candidat yi yalla tek ko ci bop réew mi waye bu loolu weesoo dafa am ay cadeau manam bataxal buñ ko bëgg jëmbal wax ko ay nit ci réew mi nga xamantene mom lay jité xamal ko ne ko monsieur le président réew mi amna na ay jafé jafé yo xamantene jappal ni foko ko natt rek weesu na bu loolu weesoo ñu lay féliciter di la ñaanal suñu borom aussi mom mi nga xamantene mo la tan pour nga jité réew mi mu woyofal yéen bi ngir rek njëriñu Sénégal waaye monsieur le président li ñu lay jëkk wax mooy jàppal ni ñi ëpp ci ñi sànni seen carte dañoo am ci yow confiance ne la dañuy dajale suñu impôt suñuy taxe suñu TVA suñuy frais de douane lépp lu mën ki doon ci koppar ñu teg ko ci sa loxo ne bu doyul sax mën ngaa lebi ci àdduna bi fu la neex ñëw dolli ci ngir jagal réew mi daal di yëkkati pale jox la daal di la tanal ñi la doy ci réew mi nga and ak ñom ngeen liggéey réew mi monsieur le président nga jël ñiy def ministre jël ñi def conseiller jël ñi def ambassadeur jël ñi def ay directeur ba pare askan bi li ñu bëgg moy luy jëmele réew mi kanam monsieur le président suñu worom dafa ne am réew fekk waa réew ma takku wuñu ngir soppi la nekk ca réew ma man sama borom man seen borom du ma jógee fenn ñëw di ko defar waa réew ñooy ñoom ñooy defar am réew donc loolu li muy kon liy defar réew mi suñu borom def na ko ci biir suñu borom jox nañu ay ressources jox nañu ay ressources financières waaye jox nañu ressource bi ci ressources yi mu di doomu Sénégal. bépp xam-xam ci àdduna bu mën ci doon xamal ne doomu Sénégal yi am nañ ko te ñi ngi ci àdduna bi yépp donc lii yóbbu Sénégal kanam suñu borom def na ko ci biir réew mi bu nekkoon loolu newul ci biir réew mi kon suñu borom du wax loolu suñu borom su ko waxee rek ça veut dire que lay yóbbu Sénégal mi ngi ci biir réew mi donc kon monsieur le président ñu lay ñaan nga dajalee li nga xamante ne moom lañ soxla pour yóbbu Sénégal kanam ngir yàlla nga def ko ndax askanu Sénégal tàggoog ay jafe

ndax réew ñaar rekk koy doxal xam-xam ak liggéey donc comme réewum ndaw la ñi ngi lay ñaan maternelle ba université ak jàng bu mu ci mën ci doon moo xam mu di jàngum lekkool wala daara bu ci mën ci doon na fexe ba nga xamante ni bërëbu jàngukaay yi ak ña fay jàngale seeni mbir ñu ba doomu Sénégal yi ñu mën sol ci ñoom xam-xam ngir ëllëg ñu bokk ci ñuy doxal réew mi bu loolu weesoo lu jëm ci wàllu faj ak wér gu yaram

salaire moins fille, Sénégal, 110 000 francs. Monsieur le Président, 110 000 francs. Couillon cœur, 110 000 francs, nous mentimons. Vous qui faites location, Faïti facture l'or, Faïti facture courant, mon ça fait d'un moukhalé. Fait par des hôpitaux, ça fait la Sous année du rêve, sous rêve du déki. Monsieur le Président, réunis, fait Donc, nous avons dit, 56% des Sénégalais sont pauvres. ANSD Mokwa. même 45% sont extrêmement pauvres. ñàkk gi ndóol gi il ko natt ci réew mi weesu monsieur le président vous nga Sénégal nous soxla jëm ci kanam Sénégal nous soxla nit ñi di lekk ba suur di naan ba am ay soxla mën koo faj les services sociaux de base loolu nga xam ne réew mu jëm ci kanam loolu mooy sa mandarga monsieur le président réew mi loolu la soxla te foofu la toll bu loolu weesoo ñu dugg ci koom-koom gi li ma la wax ni moo ne ci réew mi kon loolu day wane ne modèle économique bi ñu sukkandiku kon modèle économique boobu du yób wàññi pauvreté Sénégal ndax modèle économique bi comme taxul nombre de pauvres yi wàññeeku comme taxul askan bi gis seen bopp ci réew yi réew mi ni muy demee kon modèle économique bi ñu jël baaxul lekk di tabax tale ki pont ay tale ki pont am na njëriñ waaye àdduna du loolu donc biir yi faaw dara dekk ci wolof nee na bu deful dara du mën a taxaw donc nit ñi nañ leen dundal nañ leen faj nañ leen jàngal looloo di développement ku leen wax leneen lu dul loolu ndax na leen Sénégal réew mu mag la bu ñu nangu kenn di ñu gëmloo ni ñun réew mu ndaw lañ wala ay pauvre lañu liy développé réew mi liy développé réew yépp Sénégal yàlla suñu borom def na fa la koy développé donc nañ gom suñu bopp liggéey réew mi askan wi jëriñu mais li kenn xamul lan la 1960 depuis 1960 ba tey Sénégal nit ñi gisaguñ seen bopp président bu fi jaar ñu ne la tali kenn du ko lekk président bu fi jaar ñu ne la taux de croissance kenn du ko lekk askanu Sénégal loolu mooy askan bi dañu war a ni dañoo sonn ci yëf yi ni muy demee loolu rek lay tekki croissance kenn du ko lekk lañ wax tari kenn du ko lekk loolu lañ wax loolu mooy croissance bi ñun gisuñu suñu bopp loolu lay tekki kon monsieur le président lépp loo mën di def nga la rek waaye dina nga moytu nga geestu askanu Sénégal bàyyi xel ci li ngay def bu loolu weesoo na nga xam ne sa secteur privé national ñoom rek ñoo mën a liggéey koom-koom boo xamante ne dina jëriñ Sénégalais yi ñoom rek ñoo ko mën a liggéey man bëgguma ñuy gëmloo président de la république di def ci bopam ne privé national yi mënul def ay projet loolu su mënul nek président bi responsabilité moo ci ndax président dañ ko fa nekku lepp lu doxul ci réew mi fexeel mu dox donc président mo wara lekkelo lëkkaloo ak euh, secteur privé andando lekkelo lu ñu def tey suba ñu jàng ci erreur yi avancer continuer di avancer di dem àdduna noonu la dara xëyul sotti suñu borom sax asamaan ak suuf ci juróom-ñaari fan la ko liggéey mais pourtant bu ko neexoon def ko ci benn fan loolu lu muy jàngal mooy que ni nii da ngay def ndànk ndànk ndànk ndànk ba lépp sotti te wolof ne na bëy walla xaw ma lan su bëggee lekk doomam daf koy jiñ ne ko da nga feebar donc secteur privé bu ñu leen jàppalekul jàppalewul ba pare wëlbatiku naa leen mënu leen li ngeen di def mooy ñun def ñu li ñu war.

pour mu réew mi ci kanam ngir yàlla ngir la rek waaye monsieur le président ñu ngi lay ñaan nga bàyyi xel ci askanu Sénégal ngir réew mi mën jëm kanam bu loolu weesu lu jëm ci wàllum yoon maanaam justice lu ëpp ci Sénégal yi wala boobu lu bari ci Sénégal yi chaque fois dañuy jàpp ni kumba am ndey kumba amul ndey mooy am sentiment boobu lu ñu bari di am dañuy jàpp ne képp ku ànd président de la république soo defee naka du su dul noonu du mujj

da ngay xool conseil constitutionnel soo bëriwul gëstu bëriwul sob sax doo leen mës a dégg ci lenn ndax nit ñi sax xamuñu luñ toppatoo ndax xam nañ ne démocratie lijjanti nañ ko ba pare weesu nañ ko jàll nañ ci leneen mais Sénégal élection yu du yuy ñëw tëll waxul conseil constitutionnel waxu leneen ak leneen ak leneen ak loolu nañ koo weesu nañ jël règle yi teg ko mu leer ñëpp xam ne lii mooy règle ñu appliqué ko mu jeex du am xaj yi du am boddi du am kuma am ndey du amul kuma amul ndey loolu ñu teg ko mu jeex mu jàll ci leneen bu loolu weesoo député yi Sénégal li ñu leen di tabbee loolu war nañ ci andi ak coppite nga xam ne député bu ci nekk yow gox ba nga dëkk gox boobu ngay toppatoo waa gox ba fal la nga xam ne boo deful la ñu bëgg boo ñëwaatee laaj seen kàddu ñu ne la yow ba ñu la yónnee la lañu ñu bëggoon defaloo ñu ko donc nañ jël keneen donc nit ñi tabbee député yi Sénégal tamit fas yéene nañ ko soxla li may mujjee mooy monsieur le président suñu borom mooy joxe ndam suñu borom mooy joxe pouvoir. suñu borom mooy joxe jël loxo bi jël réew mi teg ko ci sa loxo kon nag li ma lay ñaan monsieur le président ngir Sénégal na nga bàyyi xel ndaw ñi te doole jële suñu borom jox bul ko jël di ko xeexee jël ko jëmale ko luy jëmale Sénégal kanam loolu mooy doon sa ndam ren mooy doon sa ndam ëllëg mooy doon sa ndam ci nettali te jigéenu Sénégal nga bàyyi leen xel. ndax jigéen ñi bés bu ñu yoree réew mi dox ndax jigéen lépp lu mu am ci njabootam la koy def njabootam la ciy fayal jàng njabootam la ciy faj jigéen lépp lu mu yore ci njabootam la jëm jàppaleel jigéen ñi nga gestu leen bàyyi leen xel Sénégal ngay gis retraité ndeysaan liggéey jàmbaar suñu maam yi liggéey liggéey liggéey ba ni ma ma ngi lay wax à traité xëy di outil dépense loolu Sénégal war nañ ko jombo suñuy maam wan ñu yoon bi tette ñu jàngal ñu defal ñu lu nekk ci àdduna dem ba retraité mag ñi bu njëkkoon bu ñu retraité woon dañoo jël pliaan ak ak kaamil wala bible je ne sais pas jox leen ngir ñu noppalu léegi nit ñi dañuy retraité ba pare xëy di uti lu njaboot gi dundee ngir njaboot gi ba ñëwee saaroo réew mu mel nii nag nit ñi war nañ di xool doxalin yi nañu bàyyi xel ci ñi ñuy jiite ngir yàlla monsieur le président maa ngi lay ñaan nga bàyyi askan wi xel. bàyyil askanu Sénégal xel yéen bi nag mu lay ñaan suñu borom woyofal ko mbokk yi ñu ngi jégalu bu kàddu yi xawee mais yëg-yëg gi rek lañ doon waxee ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous beneen yoon bi suñu borom ànd jërë ngeen jëf.